ak mbokk internet Dakar Midi nii la ñu amati mbégte kontaan maa ngi ak yi nga xamante ni tey mooy waa kër Ama Baldé ñu see sikk ay waxtaan yi am solo yu jëm ci combat bi ci diggante Ama Baldé Modou Lô royal combat bu neex combat la boo xam ne ku nekk am nga ci loo am am nga ci loo a jëm salaamaaleykum papa maa ngi leen di nuyu. waaleykum salaam ñu ngi leen fay bu baax. Mhm. nuyu mbokk internet yi. Mhm. nuyu waa Pikine. Mhm. dellu nuyu waa Pikine. di leen sant di leen gërëm. waaw nuyu nañ ñëpp sant ñëpp gërëm ñëpp. dëgg la waaw Ama Baldé Pikine Euh, Ama Balde Pikine Modou Parcelles tey bu ñu nee diggante Ama Balde ak ki nga xam ne mooy Modou Lo xel yi dem ci lu bari combat la boo xamante ne mu nañ bëre terrain église tey Ama Balde di ko recevoir at fi nga xam ne mooy biir pikin tey noo gisee combat boobu. waaw combat boobu àdduna ko yàkkamti ni ko Ama waxee rek combat la bi mu bëggal boppam te nit ki lu mu bëggal boppam kenn gënu ko ko mën a bëggale combat Modou Lo Ama Balde Sénégal la ko soxla Afrique soxla ko àddina moo ko soxla ci gàttal. Mhm. kon bu ñu dajee terrain g gi ko waxee. Mhm. nam fa demee mu demee fa noonu ñu nangul ko ko. Mhm. ni daan te terrain gaal gi mbapat. Mhm. mais yàlla bu dox àdduna di dox. Mhm. ba ñu nar a dajee combat royal. fu ñu koy bëree biir Pikine. doomu Pikine nar ko bëre. loolu mbégte lañ si war a am. a kontaante. waaw di wax Modou Lo ni. Pikine moom dañoo baaxoo lenn. roi des arènes ku ko fi jëlee. yaa koy delloosil sa bopp. te bu ñu gënee waxtaan mu tagal la lan moo tax mu wax la loolu. waaw loolu lan moo tax wax ma loolu ku ko fi tax. premier roi des arènes bu Pikine du woon Tyson. Tyson Mohamed Ndao Tyson. Mhm. ku ko jëlee si moom Bombardier. bañ ko soxlaa moom moo ko delloo si boppam moo ah, ko ci Eumeu mhm. boppam foofu laay waxee ak yow. Mhm. leer na. la kasa. Ama Baldé mbër bi teg pied gauche ci làmb jàpp ne lu ma la mën day dox sa kaw dóor la moo loo mbër bi teg pied droite moo la mën ci làmb Ama Baldé ni mu bëree lay bëree ba léegi wala bu ñëwee sens statistique combat lu doon def lu nit doon def déwén mu jikko bu ko bàyyee ren xam naa du yoon sax doon mu ñu naan ay ama war na changer stratégie ko doon def di ci gis njëriñ lan moo tax mu koy changer te na leen lenn xam naa da ko desee gëm te looloo am juróom-ñaari Modou Lo ama moo leen mën ci kaw gàttal mu ne dégguma de juróom-ñaari Modou juróom-ñaari Modou leen mën ci kaw gàttal te bés baa bu ñu si accès di nga ñëwaat fii dëkkaat ma sa micro. Mhm. ne ma la ka waxoon ma delluwaat ci. te fu leer lañ ko teg waaw. jërëjëf kontaan nañu. jërëjëf waaw ñu ngi lay fay doom yaay. waaw ci loo nekk nag. waa sant Serigne Touba bu wér a wér ak seen ñu gëj a gis noonu la nga toog rek sa ruq. waaw gis nga ne nekk di waajal rek. Ah. bu <laughs> baax a baax. ñi Ama Baldé mm-hmm. lañ ko wax. combat la boo xam am lu ñuy xëccoo. Mm-hmm. Modou yor roi des arènes Ama bëgg roi des arènes. dëgg la ñaan yàlla yàlla defal ñu ci tawfeex defal ñu ci ba jour ba yàlla may ñu ci ndam. ci barke Seydina Mohamed. waaw ñun moom pare nañ lépp. waa dañuy xaar jour ba rek incha allah. Modou yu bëri ñëw di bëri si à domicile ci biir Pikine tey noonu la ñuy waajalee Modou foofu fii ci biir Pikine ak nan ngeen nar a ak acquérir ay supporteurs Modou ak ay mbër yi ànd ak Modou. waa xam nga yàlla dafa dogal ñun mosuñoo mosuñoo maanaam teeru gan. Mhm. dañ daan génn ñu ñuy teeru <laughs> mais dañoo mën gan waa Pikine. barki Serigne Bamba. Mhm. waaw bu jour ba bu ñëwee dina leen dalal lu waree. Mhm. daan leen. bu soobee yàlla. lu ñuy xalaat ci combat bi mbaa du ci am violence ci côté supporters yi parce que combat bi loo xam la violence dina am ci combat bi dina ci bari yéen yan responsable ko daan ko mhm. mhm. ko wóoluwul sa mbër. Mhm. moo ñëw indi violence pour yàq làmb ji mais ñun suñu mbër doy nañu te wóolu nañ ko. kuy peg pied gauche mën a mun ci làmb te ñaari garde normal ak fausse garde. waaw combat boobu. waaw Modou peut day wax li nekk ci moom rek. gëm-gëmam lay wax. mais gëm-gëmam yeeg tolluñu fii. barke Cheikh Rafal tolluñu fii. te bu arbitre xam ne du mbër. billaahi bu arbitre sifflé. moom dina xam ne du mbër. waaw ñun nag dañoo mënewul wax daal. te tamit làmb ji laajul wax. Mhm. dañ préparé bu baax. Mhm. waaw yàlla may ñu si ndam. Mhm. tey nan ngeen préparé fële nga xam ne mooy seen TV à 21h ñu commencé li nga xam ne mooy signature Ama Baldé Modou Lô ñu jàkkaarloo te noonu koy préparé. waaw waaw ñun ñu ngi waajal dañuy woo ñëpp rek supporteru Ama yëpp waa Pikine yëpp. comprendre nga mhm. Mhm. Mhm. mu rafet mu nice. comprendre nga. incha allah ñu wax ak moom li war a wax ak moom comme wax moo ñu fa yóbbu. wax ak moom li ñu war a wax ak moom après mu jeex. waaw waaw. lu mën a xew daal ñoo fa teg jeexal. waaw. waaw ñoo fa teg jeexal. <laughs> waaw Ama Baldé Modou Lo moom ñun moom man moom lu ma ci wax foo naa ne moom ndax moom fu mu toll nii moom guddi ñu toll li Ama Baldé doon wax rek laay wax bañ ko laajee mu ne moom ni mu ko leeree ni day doon roi des arènes bu ko leeree woon ne bu dee tey dem àjjana mu dee tey dem àjjana wax jooju fu mu ko teg mooy xale la mhm. pare na te lii da koo yàgg a waaj loo xamante ni daa jékki rek ñuy waaj ko hmm. loolu ba nekk booy la ko tàmbalee di ko waaj ba tey mu yàlla def mu yegg si Ama Baldé roi des arènes noonu lu may confirmer la hmm. man Ama Baldé ni mu ma leeree ne day daan Modou Lo moom man su ma leeree woon noonu su ma dee tey dem àjjana ma dem tey tey dem àjjana loolu sama gëm-gëm la ah man lamb ji xalaatuma ci ay Ama Baldé Modou Lo mën na koo daan wala mun mënu ko daan lamb ji victoire bi am li ma gëm mooy Ama Baldé moo koy jël toogu ma ci di xalaat ni bis ba Ama dina daanoog wala wala mooy daana yi noonu man li ma gëm mooy Ama Baldé mooy daan waaw Modou Lo dafa yeb mbëru Pikine tamit jàpp naa du doon Ama Balde lu mu yab mbaru Pikine mbaru Pikine ci Ama Balde lay teeralee. gone la goo xamante ni du taxaw nga ñëw ngeen daje nga taxaw mu fekk si la. làmbam bañ naka ba nii balaa dara di xew yow balaa làmb dara jeex di nga reer ba suur te ànd sax ànd ak xel mu dal. Ah. looloo nekk ci Ama Balde arbitre dañoo kontaan ci moom. na da leen di teel a libéré. Ah. incha allah Modou Lo mooy ki Ama Balde di tër. lu leer laa lay wax. loolu suñu gëm-gëm la euh, ñun waa Pikine. instant mbokki Dakar mi dinaa la ba léegi ñu wéy ak yéen ci waxtaan yi euh, papa maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. Ah, di la laaj tur bi. man maa ngi tudd Ousmane Faye. Ousmane Faye waaw. dëkk Thiaroye. yi waaw di supporter Ama Baldé mhm. yàgg na. am fu ñu ma feete. Mhm. depuis ca papam ba léegi. te mhm. laa commencé nekk ak ñoom. ba fi mu nekk nii xadiwuma benn yoon. maa leen topp toujours di leen supporter. e ba alors euh, moment bi ma doon nii tey depuis fan yëpp maa ngi ci tubaab yi di leen ñaanal ah aussi di yokk alors euh, mën bi ak gis-gis bi lépp ci waay mën rek alors ñaax ñëpp ñuy séeréer ndax man séeréer la séeréer seek olof seek pël yeeg ndax pël ak séeréer yëpp benn lañ yaa ngi dégg donc euh, maa ngi leen ñoom ñëpp képp koo xam ne supporter Ama Baldé nga ah alors nag ci def ñaan am ci yaakaar bu baax a baax ndax man mi di wax ak yéen naa ci yaakaar bu baax a baax a baax a te ñaan naa yàlla itam eh, ndam di ñëpp si fii Pikine ndax Pikine moom wax dëgg yàlla dafa yàgg te itam eh, ay bërikat a ngi fi ay sportif kese fi ne donc nekk dëkk boo xam ne lu ñu yàgg ràññee la ci mbirum sport mbirum lépp daa bi am na ay carte donc foofu alors wax dëgg yàlla maa ngi ñaan eh, yàlla na yàlla def ndam li ñëpp si fii Pikine ci katam suñu borom ah santa yaa am naa ci yaakaar te aussi ni ma ci amee yaakaar képp kuy supporter Ama Baldé aussi am naa yaakaar ne yaakaar bi boobu ma am moom laa am te yàlla bu yaakaar tas taa wi loolu laa nekk et en même temps loolu ma fi indi tey jii pour ma ñëw gis leen alors def ci ñaan comme ñëpp ñu koy ñaane mooy woo nag képp koo xam ne supporter yaa xam ndaw nga di waa Pikine yaa xam waa Guédiawaye yaa xam waa asunam foo foo waay nekk rek te supporter Ama Baldé rek bu raté na nga ñëw alors assisté fi alors te def ñaan balaa ngay ñëw xale yi yëpp alors ñu ngi sa ginnaaw ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi koy farle ñu ngi ci ginnaaw di ko siyatal waaw daal la ñu bëgg alors euh, ñi aussi mhm. ñu ngi leen di sant di leen gërëm te tànk bi ngeen dox nii yàlla na doon loo xam ne alors da ngeen ci kontaan Ama Baldé daan ba ngeen kontaan ba ñëwaat fii ci kër gi alors ñu fekkante waat fii comme ni ñu fekkante nii taa bi man loolu laay ñaan yàlla te yàlla na am te am naa yaakaar bu baax ci loolu euh, waaw lu mu la bëgg a xëpp dina la ko xam-xam ko ci mbooloo. Hmm. fi itam ak ñi muy àndal fi gi ñu yor. Uh-huh. tey loolu ba mu amee du demee neneen. Uh-huh. waaw Ama moom moo fa dëgg neex yàlla dañoo woo ci non à la violence. Mm-hmm. parce que ki jiite ki jiite réew mi fi mu toll nii mhm. mooy sëñ Muntaxa Mbàkke te sëñ Muntaxa Mbàkke lépp luy jàmm mi ngi ciy dox kon képp ku nar a def fitna war nga xool ci jëmm sëñ Muntaxa Mbàkke ji nga xamante ne nii yéene wuñu lu dul jàmm yéene wuñu lu dul salaam ngala waa Modou Lo ñëw fair ñun dinañ ñëw fair play dinañ def yëfu xale nag ndax ndam boo ko téewee doo xeex doo xuloo te ñu ngeeg ndam ñu ngeeg ndam de bu ñu si yàlla yóbbook jàmm ak salaam nga xam ne ñu ngeeg ndam ama li ngoom lañ koy sànni muy jaar ci falan yi mu koy jàpp kon du Modou moo fay jaar wax laa wax nag wax laa la wax wax laa la wax. ok.